day wuy ji fee lay du jaar feek sunu yoon nekku ci loolu voilà man daal bu fekkee am milliardaire moo dem ba maanaam moom ci jëmi boppam amul jàmm amul salaam maanaam chaque jour mi ngi feeñal ak kiñaan sénégalais yi di ko xam ci moom bu fekkee milliardaire bu mel nii nar naa ami milliard nar man nar naa am ay milliards nar a mel ni kii yàlla na ma ko yàlla xañ parce que damaa gis ne maanaam dafa am milliardaire yoo xam ne nii bu ñu xasee euh, samp seeni entreprise nekk ci réew mi di def seen i business seen yoon nekkul ci état dañuy liggéey nekk ci seen coin di liggéeyal Sénégal lu ñu gis lu baax lu nekk ñu dem indi ji ko lu ñu gëstu ci lu baax fu ñu mën a dem ci àdduna bi am nañ ay milliards pour wuti ji xam nga ay ay ay projet indi euh, ñu defar suñu réew ñi jiitu ñu jiital leen seen yoon maanaam ñooñu seen yoon du nekk maanaam milliardaire bi aw yoonam du nekk ci euh, ñi ñi jiital réew mi lu dul rek maanaam chaque jour rek man sama côté man danaa fexe ba maanaam li may liggéeyee Sénégal Sénégal yi teg ci seen bët waaye milliardaire boo xam ne da ngay wax rek di coow rek voilà après yow ngay coow voilà lépp nag nga bëgg nga am problème ak gars yi nga bëgg jël lépp nag bëgg ko wéer état mais ak yomb mais lii neex na euh, euh, euh, muñ ndax élection yaa ngi ñëw ndax ñun liñ koy muñee mooy élection yi di ñëw bu ngeen dee campagne ci ngeen di xam lépp dëgg la ci campagne yi lañ leen di voilà parce que ba léegi fi mu toll nii jàpp ngeen ne maanaam maanaam sénégalais yi dañoo dofutul gis nga maanaam li nga xam ne politique la ak li nga xam ne ni sa yëfi bopp la dañ koo xàmmee ba pare ràññee ko voilà bu fekkee tey ay nit ñu bari génn nañ kenn ku ci nekk yaa ngi attaqué ni ba nekkee ca euh, euh, euh, li nga xam ne ni moo di jooni jooni sunu xaalis fa la des wala loolu ñooñu seen xaalis des fa dañoo néew doole amuñu doole seen xaalis bu nu sañoon jot ci ndax jamono bu naqari bi nii voilà bu nu sañoon jot ci aywa quel problème ci loolu léegi loolu ñu war koo lijjanti jógee tund foofu noonu nga ñëw fii di taf yëngal di dóor ci kaw ñoo xam ne nii seenu yónnee ko ci ndax ñoom daal naan laneen lu dul nekk fii nan dañuy topp benn citoyen boo xam ne ni wax dëgg yàlla doonul dara ci politique dara yow ab citoyen comme citoyen yëpp ab benn doomu aadama rek comme doomu aadama yi nii comme sénégalais lam daay rek nga voilà léegi lan nga porté ci politique ban xam-xam nga am ci politique loolu sénégalais yi ñoo ko wax ban xam-xam lan nga mos a defal politique fan la la politique yóbbu foo yóbbu politique lii sénégalais yi ñoo koy wax aywa quel problème sénégalais yi defuñu ñu ràññee nañ moo tax mbir mi sa mbirum boppa boo ci dugalee Ousmane Sonko Diomaye it seen yoon da cee nekkul mbirum état seen yoon newu ci voilà parce que ñi barki démb Ndiaye lañ leen dénk réew mi voilà ñi ngi am xalaat pour rëy ñu ngi fexe nu Sénégal avancé dem ci kanam ñu ngi fexe ba maanaam ladde guerre bi ndox mi nga xam ne ni war naa mën a am Sénégal ba doy sëkk ñu nekk ci loolu projet yooyu noon nekkaat ci yeneen i projet yoo xam ne wax dëgg yàlla dafay jëmale réew mi ci kanam yow nga bëgg fee nekk ni yow benn milliardaire nga loola neex ngay wax am nga sa am nga sa télé loola neex ngay wax loo wax yow jàpp ne maanaam Sénégal dañ ci ànd yow déedéet Sénégalais yi bëgg seen réew gëm seen doon ay gor mën a dégg ay wax xam image bu baax a baax duñ la topp ci loolu te du la ci far looloy dëgg gis nga fii ëppoo fi kenn ay milliards am na ñoo xam ne ay milliards lañ yor nekk ci biir réew mi mais ñoom ña ngi ci seen coin nekk ci seen i business di continuer ci seen business ngir ngir mën a yóbbu Sénégal euh, ca kanam ngir mën a yóbbu Sénégal ci kanam mais yow nag kenn xamul loo bëgg voilà munoo politique nit ñëpp wax nañu xale yi mujj juddu sax wax nañ ko munoo politique bàyyil politique dellul ci sa business bi nga xam surtout boo ko deful ñi la koy wax nag ñoo la bëgg. sinon boo ko deful da nga dem ba maanaam xam milliardaire bu perte moom gis nañ ko fi voilà milliardaire bo xam ne perte ñàkk léppam am na fi boo xefee nag boo sàggandu loolu dina la dal voilà parce que ñi mu dal nag gënoo leen ñi mu dal gënoo leen parce que si yii nga nekk nii nit ñi dañ koo romb wala dinaa la wan léegi wala wan la maanaam état bi ci lañ nekk ñoom dinaa la ko wan léegi ay oto yoo xam ne taxi la ay taxi yoo xam ne courant koy dawal mu ngi ci biir réew mi ñëw nañ xanaa loolu mooy jommi ngeen maanaam liggéey ñi nga xam dañuy liggéey ak ñi nga xam dañuy wër di wax seen bopp doo ñor moo tax sénégalais yi xàmmee leen ràññee leen bu baax a baax a baax voilà kon yow Bougane demal nga toogi fële bu fekkee élection yi di ñëw nii ah xam nga nag nooy mujjee gars yi waaye en tout bu fekkee élection yaa ngi ñëw bu soobee yàlla sanction yi moom dina leer foofu noonu ci xam bu baax a baax ne war ngeen a dem seeti lu ngeen def te ngeen génn ci seen politique bi politique ba woon jeex na si fini léegi li fi des mooy liggéey ànd ak ñii ñu liggéey ñëw leen ngeen rangé wu ngeen liggéey bu ngeen ko mënul nag ngeen xool nu ngeen def voilà am ngeen ay milliards dem leen ci yeneen réew ngeen yóbbu fa seen i milliards kenn milliardaires yu mel ni yéen soxlawuñu leen milliardaire boo xam ne yow da ngay nit ñi lu mel ne xeme te yow nit ñi defuñu la dara wax dëgg yàlla ah loolu koy wax dëgg fa nga war maanaam yow si sa jëmmi bopp yaa war a bàyyi politique dem continuer si sa business bi nga xam sinon boo deful perte da def da perte te pare tamit da nga ñàkk nit ñi nit ñi moom ñàkk nga leen sax ba pare voilà kon yaakaar naa ne nañu bàyyiwaat xel bu baax a baax xam ni euh, nit ku nekk rek la muy wax moom la engagé voilà nit ku nekk tamit la muy jëf moom la engagé voilà ñi mënuñu leen fi teg barki démboo njaay ñu jox leen am réew joxuñu leen ab quartier de ñu war a defar réew mi yow nga taxaw fële xamul loo def voilà nga bëgg leen ci nga bëgg a jël say wax di ko ci kaw ñoom bëgg non déedéet di jël ay état non non bul jaxase lu bokkul sa yëf yi bopp la sa yëf voilà bàyyil Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay respectel nit ñi ndax nit ñi leen fal yaakaar naa ne majorité euh, Sénégal ñoo leen fal moo tax ñu mën a toog fee ñu toog tey yàlla leen tànn teg leen fa nungu nga ko xayrun boo ko nungut sa affaire la waaye en tout cas daal na nga nungu lool beneen bi ci des tamit moo di xanaa lii mooy jommi ngeen voilà El Malick Ndiaye mais xam ne sax su saa su nekk rek lu jëm ci mbirum transport bi mi ngi koy ñoŋal lii la ñuy wax lii mooy liggéey voilà xam nga El Malick Ndiaye tey xale jeune la voilà daanaka mën naa ne gis nga tey lim apporter Sénégal voilà indi fi ay taxes yoo xam ne ni méngoo naag jamono nee naa leen Sénégal dafa tardé Sénégal nag mën naa dabu réew yi ko raw mën naa dabu ndax ci kaw euh, ñi nga xam ne jox nañ leen réew mi ñu bëgg réew mi incha allah raw ñu teg ko ci code lépp loo xam ne rek méngoo naag jamono méngoo naag adduna euh, bi ñu indi ko bu ko defee nag wala euh, mu nekk loo xam ne dabe lay doon ndax xam nga taxi courant moom a ah, euh, bari na réew développement yoo xam ne amuñu ko de waaw am nañu ko am nag waaye am nañu xam ne amuñu ko gën a xam ne fii la mbir mi ne mais mbir mi du benn nit boo xam ne ni dafa toog fële di wax ay waxam ni topp ci moom ak yooyu kii nañ ko nañ ko classé na le te jël ñii nga xam ne dañuy indil Sénégal li nga xam ne nii foofu la foofu la après ñu mën a ànd ak ñoom ñu jàppal leen ñoom ñu liggéey Sénégal parce que Sénégal bu defaroo sunu Sénégal la bu yàqoo sunu Sénégal la voilà du dëgg am na ñoo xam dañuy wax naan Sénégal Sénégal waaye daaray Sénégal itteelu leen seen bopp dong leen itteel waaye El Malick Ndiaye Sénégal itteel na ko dem indi taxi courant moom xanaa loolu mooy jombi ngeen taxi courant <laughs> voilà taxi courant yi kan a yokku na gën yaatu na dem ba ci voilà transport yeeg yëpp voilà njaga njaay yeeg voilà yëpp rek voilà su defee ñu indi fi ay modèles yu oto yu bees dàq defaraat dëkk bi voilà seetal dëkk bi comme niñ koy defee saa su nekk bu ko defee nag ñii fi nekk ni jàppee seen i bopp ay borom xam-xam la ñu élection yi rek moo tee ñu sanctionné leen tege dee nale nit ñi fàtte leen nag ñu nekk ci nag liggéey Sénégal ñu avancé dem suñu yoon voilà ñii moom élection yi yàgg soreetul ngir yàlla ngir yàlla sénégalais yi ñi nañ leen sanctionné ba xam ne ñoom ak lam daay yee yem kenn du leen dénkati ay réew ak i quartier parce que ak sénégalais lambda yi ñoo yem sénégalais lam daay sax leen tane wala parce que la ñuy incarné mooy xaalis lañ am waaye amuñu xam-xam ak yuuru maanaam dox nekkul ci seen bopp voilà xaalis boobu noonu ñu am moom la ñuy jéem a teg ci sunu kanam ak benn image boo xam ne ni mais du xam-xam du dara léegi nag sanction yi nag mooy maanaam élection yi di ñëw sanctionné ñu toog yi ñoo xam ne xamuñ dara bu ko defee ñu noppi nag bu noppi ñu waaw